مهربا من طاعة الرجيم ومسلكا لسبل اتباع ومدركا لسبل ابتداع ومسكنا لجلب كل خير ومسكنا لدفع كل خير وسببا لفضل خير جنة لمن نظمه di kuréel gu xalif général des mourides cheikh mouhamadul muntaxa mbàkke taxawal lëkkale ci commune bu Touba daara xisbu tarxiya ak Touba ca kanam ngir ñu taxawu nag mboole mbokki taalibe yi nga xam ne dañoo loru ci mbënd mi ci dëkk bu sell bi di Touba. bi yàlla suñu borom dogalee euh, ndox mi jéggi dayoo Touba ba indi ay lor ba ñu recensé lu war a tolloog onze mille cinq cent familles yoo xamante ne ñii génn nañ seen i kër ñii seeni i miir daanu na ñii seen i fosse euh, affaissé wu na ñii tamit. am nañ sax ay ñu am ay gañu gañu am na ñoo xam ci seen toile lañuy yek di togg wala di mëna sax euh jappalé seenu njaboot am ñoo xam ne seen dund it ñak nañ ko lool bi mu amé mom mo jëk jëf yëkëti 200 millions sos ab kuréel ndax xam na euh bo gisé ñuy wax les grandes victoires toujours c'est les grands ensembles hein qui les réussissent tay ji dañu tollu fo xam do doo beru ne Touba ca kanam mu nga ne Hizbut Tarqiyyah mu nga ne le commune de Touba mu nga ne le ku ci ne doon acteur de developpement sëñ bi nag boole leen créer benn kuréel boo xamante ne gérer lii moo ko tax a jóg xam na ne ampleur bi moo laaj loolu kon dafa ko tuddee junnatu li man nazamahu junnatun nag bouclier la maanaam lu war a ñëw doon gàllankoor wala mu yàq moom wàllu baatin bi sëñ Touba saytu na ko waaye saayir si am nañ ci suñu wàll waaye nag nañu xam ne gaa yaa ngi ci terrain bi and ko ak les services compétents de l'État ndax li euh, walu assainissement du lo xamantene bonne volonté rek day jóg melni kuy isoler action dedet motax le gouverneur ak lepp lu jëm ci euh, commandement territorial dañ ko and ak ñom and gi ko and ak ñom ñoo ngi ci anam yépp li ci jitu moy recensement bi ndax loolu dadul compétence bo xamantene dañ ko wara woyefal ba ne amna sax ñoo xam dañ jàpp ne bindu gi moy da ngay ñew kër seigne Touba gi bindu Touba gépp xajuñu fi ngir bindu euh ñi doon def recensement bi firiwul ne état bi rek moko def ñun dañoo jël ay équipe boole ak ñom ngir and ko euh, mu doon lo chef de village yi ak chef de quartier yi ñoom lañ koy andal ngir ñu mën ko def ñom ñoo recenser ba trouver onze familles lu ci ne it bu ñuy jóg di dañuy dem ba gis lo xamne day confirmer wala mu infirmer li nga xamne moy li agent yi doon def recensement liñ def kon nañu xamne ne liggéey bu sérieux la. le jëk ci seeni jéego mooy nag dajale ay ndimbal ngir mën a wallu nag askan woo wile ka ca jiitu te joxe ca ndigal mooy cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké xalif général des mourid distribution bi itam wax dëgg yàlla ñoo ngi sant yàlla ndax cheikh Mouhamadul Mountakha moo jëkk yëkkati deux cent millions indi ko waaye taalibe yi kenn taxawul. kon ñu ngi indi loo xamante ne buñ ko booleeg jëfi sëriñ bi euh, dina mën a sori liñ njëkk xayma rek ci euh, onze mille cinq cent ménages yooyu lañ leen di jox nga xam ne minimum dina ci am muy boo jëlee ñaari saaku ceeb jël lu mel ni euh, bidongu diw jël tamit limu ay koppar yoo xam ne dinañ la ko jox ndàmpaay jàppale la ko loolu bu ñu ko xoolee ñun daanaka jege nañ sept cent million yoo xamante ne équipe sociale tàmbali nañ seenu liggéey waaye ñu ngi ñaan rek ñu yombalal leen ko te xam ne euh, du indemnisation junnatun li man nazamahu fasantikoo ci ay bànqaas yu li ëpp ci seenub liggéey nag ñu daal di koy tàmbali ci mbooleem gox yi nga xam ne nii mbënd ma da koo laal lii nag état du Sénégal lañ ko àndal ngir man ko amé ni ko cheikh mouhamadul muntaha mbake santaane dañ ci and ak état état aussi dafa amu doxine ndax indonation maanaam DCPI dafa ñëw ONAS ñew ci and ak gouverneur ak préfet ak sous préfet donc ñu and liki bi ak sapeur pompier muy service technique de l'état euh mu ñu daje ñomit def ben programme ci lepp li nga xamné ne euh, service de l'état la ak euh, te lu jëm ci technicité ñu ànd ko ak ñoom sa bu ñu yendoo lu ñu yendoo ñun mi ngi ci ñoom ñoom lu ñu yendoo ñu ngi ci ñun ba ci commission yi nga xam ne sax administration da koo sàkk dañoo jël ay membre ci ci gur ci kuréel bi ñu dugg ci ñoom it ñu ñu ànd ak ñoom ci terrain bi ku nekk gis na ni ñu ànd ci terrain bi muy ONAS muy sapeur pompier muy DCP ak ñi nga xam ni ñëw nañ te bokk ci yeneen gox di ñu jàppale si muy ku mel ni EFAS eh, yëpp dañ ko boole muy benn doole muy benn programme. donte junnatul liman nazamahu ñu ngi amal liggéey yu am solo moo xam ci xayma mbooleem ñi nga xam ne ni dañoo loru ci mbënd mi dem seeni kër ngir taxaw leen ci seeni jafe-jafe moo xam manqal leen ndox mi wala toxal leen ci seeni kër yóbbu leen feneen liggéey bu am solo boobu itam nguurug Sénégal. seetaanu leen ci benn yoon. gis nga aussi ndimbal yi nga xam ne jaar na ci état état def na lim ci war a def mais ndimbal yi nga xam ne dafa jaar ci état ñu yóbbu ko ci ministère de la femme euh, maanaam ministère de la solidarité dañ koo jëlaat indi ko ci euh, ci ci ci ci ci bi lépp ñu ànd ko suñu polo bi ñu gën a metti daal bi nga xam ne xaw na jaaxal fi mu nekk nii mooy ngiraaneen fetto waaw parce que déversoir bi fu ñuy jé mooy suñ problème buñ jëlee ndox mi fuñ koy yóbbu ndax diggante bi mën na trois kilomètres quatre kilomètres te euh, amul amagul réseau te foofu am nañ jafe-jafe ba dem tey ci suba état ak kuréel gi yëpp fa la ñu xëy ak ña nga xam ne ñoo fa dëkk ñuy xool ban solution la ñuy def ñëw nañ léegi nii pour ñu xool nan la ñuy def ban solution lañu and ak service de technique de l'état yi donc ak gouverneur ak préfet sous préfet ak ONAS ba ban solution lañ ci jël ci lolu collaboration bu rafet lañ am and bu rafet lañ am ñu aussi liñ indi yëpp moyens yiñ indi yépp ak yi nga xamné ne participants yi indi nañ ko ak talib yi dañ ko bolé mo lolu mo tax sax ñu mëni ci gawa di ci génne nii nak. nag wàññikuwul it nak ndax tànk booy onze mille cinq cent et quelque euh, famille su fekkee ne du amaguñu ci sax lu mat cinq mille donc nga xam ne lu mu néew ne si nañ ay six mille et quelque quartier bu mel ni ngaraaneen ko dem xool na mel ak fetto nga xam ne problème bi des na waaye nag technique ñi ngi ci xool ba solution technique yi ñi ngi xool nan la ñuy def ba jàppale leen maanaam kuréel gi ak état guddi ak bëccëg suba ngoon ñu ngi xool ban solution la ñu def ba nit ñi am jàmm waaye ba nga xam ne problème bi waxuma nii mu amee mais bu liggéey bu amee du demee nii loolu yëpp ñu ngi ci di ko xalaat. liggéeyub junnatun liman nazamahu fasantikoo ci ay wànqaas bokk na ci la commission technique. ñu daal di def seen kem kàttan gannaaw bi ñu amee ay jumtukaay yu mucc ayib boole ko seen xamxam xam taw bii nga xam ne <clears throat> wàcc na ci dëkk bi impact bi mu def ñaare sax ñi nga xam ne laalu leen wala nekkuñ ci dëkk bi mën nañu ko bañ a xamee dëgg-dëgg impact bi ni mu toll bala nga koy xam rek da ngay wàcc ci terrain bi dugg ci gox yi nga xam ne ñoo gën a impacté bari na lool lool lool léegi nag ci biir sunu liggéey ñoon mooy nemmiku gox yooyu gox yooyu nag. yi nga xam ne jotoon nañ ko cee xam expérience bi nga xam ne amoon nañ ko ci biir Touba ca kanam ak experience bi nga xam ne ñi bokk ci kuréel gi ñëpp am nañ ko moom la commission technique am moom la jël teg ko ci table ji te mooy di déplacé wu di dem ci gox yooyu ñu xam ak ñi nga xam ne dañuy ñëw fii ci kër sëñ Touba gi di fi bindu di déclaré ne seen koñ wala seen kër wala seen i gox dafa am jafe-jafe bu ko defee nag noonu la ñu organisé am ay équipe yoo xam ne ñoom ñooy déplacé wu dem sur le terrain yóbbaale ay moto pompe parce que li ëpp ci li ñuy def nii pour génnee ndox mi système pompage la donte amna ay camion hydrocureur ci yenn zones yi dinañu utiliser yenen technique tamit moy drainer jéem talal pour ndox mi meuna déplacer wu dem dugg ci caniveau yi mu nek liguey bu bu reuy reuy reuy bo xamné amna ne délicatesse parce que euh moment bi ñu tollu réseau assainissement bi fi nek dafa saturé dafa saturé déversoir yi aussi dañu saturé loolu motax ci régulation lañuy dox dañuy réguler buñu buñu buñu buñu buñuy dé pomper dañuy liguey en parfaite collaboration ak ONAS parce que ñom ñoy yor exploitation réseau bi ñooy xam actuellement nii ndax euh, saturé na laaj na yenn zones yi ñu arrêté pompe yi bàyyi ba ca kanam tuuti ba mu xaw a féex ñu doog a taalaat euh, gris avaloir yi ak exutoire yi nga xam ne ci la ñuy dugal tamit da am yoo xam ne boo ko songee ak puissance pompe yu mag mën na ko bañ a loolu nekk ay liggéey yoo xam ne dañ ko def de manière technique ànd ko ñi nga xam ne ñoom a àndal ak équipe yi nga xam ne moom la junnatun li man nazama teg ci terrain bi ñuy def liggéey yu am am solo nga xam ne chaque jour bu ñu xëyee dañuy déployer équipe yi ñu nekk partout ci bërëb yi nga xam ne am na jafe-jafe ndox donte nag couverture bi ba léegi des na ndax ba léegi am na ci yenn quartier yoo xam ne euh, demaguñ fa. ginnaaw liggéey bu am solo boo xam ne nii def nañ ko. ci ñaari ay bés waa technique ñu ngi soññewaat bu baax a baax ñii di nguur gi lu jëm ci wàllum kaaraange ak wér-gi-yaram ñeel bërëb yooyu nga xam ne nii yenn yi ndox ma ña nga fa desandi yeneen yi sax ndox ma jóge na fa waaye nag ñu dëkkaat ko dana des lool. da cee gouvernement bi lay soxal à travers autorités locales yi parce que am na lu ñuy wax protection civile ñom seen warteef moy dem ci terrain bi xol kër yi nga xam ndox mi impacté nako ndax yi baax na ba ngir nit man fa nek wala amna risque lolu liggéeyu protection civile la amna ci seen biir ay génie civile ñoo xam ne seen xam-xam match na jëm ci walu bâtiment ñom ñoy wara xol lolu benen bi ci def tamit dafa batay jëm ci batay tey ci wàllu euh, structure euh, sanitaire yi ak ñi nga xam ne walu prévention ci domaine bobu te japp na ne ñi ngi ciy liggéey parce que junnatun Liman Nazama da fay liggéey en parfaite collaboration ak euh, autorité locale yi nga xam ne ñoo fi nekk te boo ko waxee mën ngaa jiital sous préfet avant nga dem ci préfet ak gouverneur te ñoom am nañ ay commission yoo xam ne ñu ngi liggéey ci domaine boobu li nga xam ne nag moo jëm loolu ci commission technique bi junnatun li man nazama la te mooy ab ab ab gox boo fa demee fexe ba génnee ndox mi euh, fexe ba ba ba ba ndox mi dañ bañ mën a récupérer waat quartier bi la cee des mooy drainer waat ko fexe ba tàllalaat ko ba dem ak dikk mën a jàpp parce que xam ndox fu mu fu mu taajalu yàgg même bu ndox mi dañee dafay des buu day am ban bu fa nek déplacer ak tank sax du fa yomb mhm. remise en état yoyu commission technique ñi ngi ciy bàyyi xel toujours quartier buñu paré war nañ ko fa def ci quartier quartier yi nak nima ko waxé légui ndox yi dafa bari de telle sorte que man nga pomper sax légui ba jàpp ne jeexna alors que def na ay poste yo xamné bu yenn pompe yu ndaw ndawaan yi dugal ci kër yi buñu génné waté ci mbéd mi rek day da ngay obligé tegaat pompe bu mag pour drainer wat yobu ci exutoire bi ci ci ci tënk daal ci côté boobu liggéey bu yaatoo yaatu la eh, ndax bu bu bu weesoo nit ñi nga xam ne génn nañu seen i kër ñu recaser leen ci ay bërëb yu fasantikoo eh, quartier yi nga xam ne tamit daanaka dañ ko abondé abandonné mu nekk ay quartier déserte dafa am yeneen liggéey yu fa waraat ndax wàllu sécurité war na fa am na ñoo xam ne bañ fay jógee dañoo bàyyi seen kër noonu ñenn ñi mën a génnee lenn ci seeni i matériel génnee nañ ko ñi nga xam ne mënuñ ko ay porte rek ay fenêtre rek ay lal ay yeneen ak yeneen dafay laaj sécurité loolu tamit ñi ngi ci tàll loxo autorité locale yi ñu bàyyi ci xel ñi nga xam ne ñoo yor euh, ñoo yor wàllu sécurité fii euh, ñu ñu ci gën cee bàyyi xel ci yenn carte yi nga xam ne seeni borom génn nañu nit ñi nga xam ne na jot nañoo génn ba dem li ñuy gën a yàkkamte rek mooy ndox mi mën a génn bañ mën a jotaat seen i kër toujours sax loolu la wax même ñi nekk ci de recasement yi li ñuy wax mooy mbaa suñ koñ ba yeneen koy bàyyi xel mbaa koñ ba yeneen koy bàyyi xel bu ndox ma dañee dañoo bëgg a mën a delluwaat ci seen i kër ngir xam nañ ne kat dëkk nekkum négandiku kenn ku nekk boo sañoon fa nga dëkk fa ngay nekk muy liggéey yu rëy yoo xam ne commission technique mi ci dox jéego yu am solo liggéey boobu yaatu boobu nag day tax commission technique toujours mi ngi wéy di soxla ay pompe toujours mi ngi wey di soxla ay tiwo

kuréelug junnatun liman nazamahu gannaaw bi ko cheikh mouhamadul muntaxa mbàkke xalif général des mourides taxawalee dañ ko daal di nos ci anam yu mucc ay benn ci bànqaas yooyu di commission finance ñuy amal liggéey bu am solo projet DIR tam ni ngeen ko xamee lépp luy dugg commencé ci li nga xam ne dafa jiitu woon comité bi di taxaw ci ci nga xam ne mooy participation wu sëriñ bi di deux cent millions euh, foofu lañu tàmbalee ndax loolu moo jiitu commission bi ak lu ko fa fekk ba fi mu ne nii euh, ñu ngi ko généré di gérer compte bancaire yi di xam itam lépp lu fa dugg ci waxtu ba mu fa dugg ak kan moo ko fa dugal ci noonu itam la ñu amee ay euh, monnaie transfert euh, d' argent yooyu yëpp itam dañ koy gérer waxtu wu ne ñu xam lan moo fa tàbbi luñ ciy décaissé itam ci anam gi ñu koy décaissé mooy expression de besoin bu am mooy commission bu soxla lu jëm ci liggéey bi commencé par commission technique.

suñ gisee ne lu mënu la ñu valider ñoom buñ ko valider ba pare nag kayit boobu la ñuy indi finance buñ ko indee ñu téye kayit bi nun xam ne lii mënu may ndigalul ñu dekee se wala ñu ñu joxe lu mu mën a doon bind suñu bon nag yóbbu ko comptabilité mu enregistré ko bu ko defee bu ñëwee bon boobu ñu livré ko ak ak la ñuy joxe kañ koy jox moo xam nature la moo xam xaalis la moo xam lu moo xam ne daal liggéey bi moom liggéey bu yaatu la donte euh, am na efficacité alhamdulilah ndax yàlla dimbalañ ci fàgguteefu sëriñ bi ñu am barab bu yaatu boo xam ne commission yëpp fa la ñuy liggéey fa la bureau yëpp nekk fa la matériel bi nekk ci ndimbalul sëriñ bi tax na procédure bi moom yaatu na ndax dañ ciy bëgg transparence ci tegu ci aw yoon waaye du metti ndax da ngay ñëw ci table ji wax ak ki nga war a waxal indil ko kayit mu def ci lam ci war a def bu dee lu muy wiise mu wiise ko nga jële ko fa dem ci taabal jee wax ak ka nga war a waxal bala ngaa jógee génn saal bi li nga a sottal lépp sotti waaye lu mu ci mën a doon daal dana tegu ci yoon ndax dañuy bëgg bu ñu ñu rendre compte ci anam gu mu gën a rafete waaye loolu nag dafa ànd ak vigilance bu bu mat a mat benn ngi ci bànqaas yi séq junnatun liman nazamaho di commission administrative ñoom itam seenub liggéey yaatu lool commission administrative bi nag li soloom daanaka interface la ci kuréel gi ndax moom mooy superviser di coordonner un peu l'essentiel des commissions mais di leen jàppale it ci outil de gestion yi maanaam lépp li nga xam ne jumtuwaay la bu ñuy liggéeyee foofu lañ koy tërale foofu lañ koy taxawale waaye di saytu nag doxaliin yi maanaam koppar yi war a génn matériel beeg yooyu yëpp am ci pàcc bu am solo ba nga xam ne dañ ko dénk ci wàllu validation muy yenn niveau yi yi nga xam ne ni àggul fenn fi demee nag ba àgg ci yenn yenn proportion yi loolu dañ koy bàyyi kilifa yi nga xam ne ñoom la sëriñ bi tànn.

ak lan mooy jubluwaayam ci bis bi bu ko defee ba pare commission yi ku ci ne day dem ci euh, lañ ko dénk nekk ca ñun nag mm, toute la journée ñoo ngi kenn continuer ci lépp lu jëm ci wàllu euh, validation ak euh, saytu ak supervision bi ñu dénk loolu moom du taxaw à tout moment dañ koy def mais buñ ko defee nag ba jant so ba commission yëpp pare li ñu doon def dañuy def benn séance de débriefing moo xam ne mboolem commission yi dañuy teewaat ku ci ne la nga defoon nga jëmmal ko loolu nag ñaar lañ ci jublu la ci njëkk mooy fexe ba ñi seq liggéey bi ginnaaw bu ñu xëyee ku ci ne da ngay nekk ci sa waar bu ngoonee nga mën a xam ku ci ne lam yendoo donc loolu genre harmonisation lay doon ak information ba ca toppit mooy ñu bu ñu defee débrief foofu ba def euh, le point ñu fexe nag euh, perspective yi maanaam li li ñu war a dëgmal ñu mën ko faa wax ku ci ne joxe ci sa observation ñu koy saytu saytu ko donc loolu daal daanaka danañu jëlal bu ñu 9h ba yenn saa 23h lañuy la ñuy pare. junnatun liman nazamaho ci fàttali kurel la gu cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké xalif général des mourides joxe ndigal ngir ñu taxaw nak mbolé mbokki taalibe yi nga xamné ne am nañu ay jafé jafé ñeel mbënd milé gannaaw bañ ko taxawalé ñuy amal liggéey bu am solo. lu ëpp ñaaru ay bés fii ci kër Serigne Touba gi jàkkaarloo ak jumaa ji foofu la ñuy joxante dox daje ngir nos liggéey bi ku nekk ci ñoom di def sab liggéey boole ci ak xam-xam ak yéene donte liggéey bi sori na lool waaye taxawut mu jeex benn yoon ci anam yooyu sax tax na ñi nga xam ne ñoo seq liggéey bi duñ dañ mukk di soññ mboolem julliti ak taalibe yi ngir ñu wéy di tàbbal seen loxo waaye di fësal seen yéene ba lii cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké bëgg ci dëkk bu tedd bii di Touba jëm ci taxaw ñi nga xam ne dañoo loru ci way mbënn mi mën koo amee nu ko kowe njort